da ngeen di xeex mbirum arme te gis ngeen li France def Libye dem jox benn ay rebelle arme ñëpp d'accord ne ne depuis bi xeexu Libye bi amee ba tey eh, rebelle yi dañoo gën a am légitimité ci Sahel bi loolu yëpp kan moo ko sooke France ngeen ñëw dakaar nag toog te li ngeen toog di wax yëpp Macky Sall ndekete ak ngornement am ñu ngi jënd ay arm dem lëkkaloog benn association des malfaiteurs benn nit koo xamante ne que ni adduna bi koy rëbb bloqué ay comptam kon événement mars gars lu tëw lu tëw xam daa yàggul lu tëw xam daa yàggul wallahi Sénégal képp ku fi nar a def ñaawteef sa kaw lay këpp tey ñi waroon yor sécurité Sénégal ñi waroon aar kaaraange doomu waa waa réew ma ginnaaw yàlla te ñun ñoo taxaw tey dem di lëkkaloo ak ay defkatu ñaawteef pour déstabiliser Sénégal événement mars <laughs> gars yi lu te wax xam daa yàggul <laughs> non yàlla du nit wallahi yàlla mooy xakim événement mars sénégalais bu nekk mu ngi doon poser question nervi yi fan lañ jëlee arbu luur yi nga xam ne xoolal takk der yi sax yoruñ ko ndekete yoo ñoom waa bennoo bokk bakkaar arme yi ñu jëndoon ndekete moo nekk nii tey nag leer na nañ ci bopp sénégalais yi réew mi mel na dara xewul plateau télévision yi journaux yi doo gis kenn ku ci indi débat bu am sérieux débat bu sérieux Ousmane Sonko guddi Ousmane Sonko bëccëg Adji Sarr guddi Adji Sarr bëccëg nekk ay korompi nekk ay nit ñu bon ñoo xam ne nii sax baaxuñ ci société subhanallah léegi leer na nañ leer na nañ ne événement mar nervi yi arme lourd yi ñu yoroon waa Benno Bokk Bakaar ñoo leen ko jox lëkkaloog benn doomu Nigéria boo xamante ne que nii adduna bi yëpp ñu koy wër def defkatu ñaawteef la ñoom ñu dem lëkkaloog moom jënd ay arme leer na nañ nag léegi léegi nag tey seen plateau télévision yi ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu moo xam rajo télé bugaan naa fekk bu mag ba moo xam Youssou Ndour naa fekk bu mag ba moo xam ñëpp ah, ñu ngi leen di déglu tey seetaan lan ngeen di wax parce que lii lu ko gën a garaaw réew mi mu ngi si danger ba pare nag dem toog ak seen i journalistes complice naan noo réew mu am pétrole dafa am ay force étranger yoo xam ne ñu ngi ci biti si réseaux sociaux yi leen di jaar pour taar réew mi jox ay nit arme te boobu fekk na bennoo bokk bàkkaar ñoom dugal neen arme bi bu yàgg ak seen i journalistes nos journalistes sénégalais yi gars yi bu ngeen tuubul deltu ginnaaw wallahi alazim yéen fi daawee ndaxte yaa ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran yéen ñi nga xam ne ay way gëm ngeen soril leen seen bopp ak seen njaboot ci safara journaliste yu Sénégal ci danger bu mag a mag ngeen nekk parce que bépp complicité bépp complot bépp ñaawteef buy Macky Sall def ci peuple bi si yéen la koy jaaralee ay ragal leen yàlla te xam ne di ngeen dee ana Ndiouga Kébé ak miliyaaram ana Djily Mbaye ak miliyaaram ana Aline Sow bërki Démo Ndiaye ak miliyaaram journaliste u Sénégal da ngeen di dee riba gi ngeen di lekk di lekk ay ganaar ak ay musi amul njëriñ ndaxte boo leen ko lekkee vingt quatre heures génn demu leen douze ngeen baal ma mu indi leen jafe-jafe seen kër yi da ngeen ko fi bàyyi kullu man alayha faan ngeen war a dem nag jàmmarloo ak borom bi subhanahu wa taala man de duma leen baal ñaawteef gi Macky Sall di def yéen journaliste yu Sénégal ñenn ñi ngeen di toog si ay plateau télévision di kàcc suba ba ngoon te leer na leen li ngeen di wax ay kàcc la wallahi azim di ngeen bis dina musa ñëw di ngeen ko rëccu alalu àdduna rek ngeen topp fàtte alaxira te alaxira moo sax moo gën wallahi azim bàyyi ngeen àdduna fàtte ngeen ko alaxira fatte ngeen ko intéressé tu leen topp dund aduna rek di daw ger ger ger ger ger ba bis ñëw ñu tak la yeewlu duggal la ci toxma nga wara répondre si korom borom subhanahu wa taala yena bon journaliste yu sénégal tak der yu sénégal yena bon justice bu sénégal yena bon yena haram yena yes a tay gatch ngeen ci afrique waxuma ñu dajé ñu dajalo sen dajé na fekk yoyu sen dajé na fekk yi di wax sécurité Sahel sécurité terrorisme te yéen yéenay terroristes yu terroristes yu mag yi ay force spéciale yi association des malfaiteurs ndax lan aduna rek bal tuusiruuna alxayaata addunia wal axiratu xayrun wa abqa adduna alaxira fàtte ngeen ko intéressé tu leen sax te pourtant foofu moo gënta moo sax fii lu ngeen fi dund dund bu ngeen dundee téeméeri ak doyal xam naa ne nag ay dee intéressé wu leen gëmu leen ko sax ay dekki moom ay barsax gëmu leen ko waaye ku jàng alxuraan ba comprendre Moustapha alayhi ba mu demee wuyu ji borom bi subhaanahu wa taala la mu gis ak mbugal ya nga xam ne sax jaam yi ñu ngi fa ñu ngi si yowmal xiyaam sax jotagul.

man instant yi may wax ak yéen nii lox laay def wallahi azim man ba ma déggee lii ba tey gars yi ci beneen monde laa nekk ci beneen monde laa nekk te te te te te te te non musuma gis lii lii musuma yaakaar ne sax Macky Sall dina ñëw ba egsi fii yéen ñu dénk leen réew ngeen war a sàmm réew ma delloo waar réew ma comme ni ñu ko joxee woon waaye luubal bi ngeen luubal mu leer na leen yéen mu ngeen fettee nguur gi ci kaso bi ngeen jëm ah yéen ngeen pare pour déstabiliser Sénégal arme yi leer na nervi yi arme luur yi yoroon mu ngi nii sama gars yi Sénégalais yëpp ñu doon inquiété wu di wax arme yi fan la jógee police nationale gendarmerie nationale la ñooñu ñoo gën a ñàkk jom man ñooñu moom heure buñ deeyee xaw ma lan leen war a répondre si kanamu yàlla parce que yéen a waat ñu leen di fay suñu ñàkk ne yéen da ngeen war a aar suñu kaaraange police nationale gendarmerie nationale force de défense ak sécurité. yéen da ngeen a waat ne yéen da ngeen yor suñu sécurité ñun jaaykatu gerte caaf bi di daggu juuti jaaykatu ndox bi di daggu juuti tëyër bi di daggu juuti baara ñini bi di daggu juuti yéen ñu leen di fay suñu ñàkk yéen seen ñàkku jom ak seen ñeme yàlla ngeen mun a toog di seetaan lii. Macky Sall pare pour déstabiliser Sénégal xam na ne jeexal na xam na ne perte na man yàgg naa leen ko wax bu yàgg nee naa leen sondage yi ñuy def nii nii bu leen sonal seen bopp deuxième tour moom kenn waxaale wu ko ne président Ousmane Sonko day dem deuxième tour te nemmeeku tour bi bu ko continuer ci détermination ak fit ak ñambaar ñun ñëpp ñu jàpp ji am na mille chances pour gagner deuxième tour incha allahu taala mais deuxième tour vous allez. wuñ ko 35 et 35 des Vous vous dites, 35 vous ne sonal sa ne Pastef am Vous allez bu yalla defee nak li continuer deuxième tour moom dañuy Parce rek si vous taala parce que bo xolé élection mo am 33 000 voix 2019 deux ans moi. am et eh, 700000 voix élection locale yi gis ngeen élection député yi gis ngeen te chaque jour mbolo maa ngi mabbeeku sénégalais yi ñuy gën a yeewu ci politique lii moo leen tiital lii mooy leen jaaxal moo tax ñu bugg a déstabiliser Sénégal jël ay 45 milliards jënd ko ay armes jox ko ay nervi amul benn sénégalais boo xam ne war ngaa toog léegi nag tey télé yi média corrompu escrocs yi ñu bon ñu xaraam ñi fii laa doon toog di koy wax suba teel waa APR di weddi nee naa leen ñun ay média corrompi leen yor parce que ay journaliste yoo xamante ni que nii sawaay ñu si ëpp si ñoom corrompre neen leen sécurité réew mi intéressé wu leen nu askan wi intéressé wu leen ñoom daal di leen intéressé mooy ñu leen di jox ay enveloppe ñu nekk ay jaam am na si ñu diñ nag mais ñu tuuti la. tey bu fekkante ne que ni pétrole bu Sénégal koom-koomu Sénégal ay journalistes étrangers ñoo dem enquête ñoo dem enquête moo tax man gars yi man kenn laa ci dul déglu je suis désolé suis désolé kenn laa dul déglu parce que journaliste lan mooy rôle amul kenn ci ñoom ñuy toog fii moo xam ñu yor seen seen YouTube view kese leen ut moo xam ay journalistes kenn du ci dem ci àll bi di def ay investigation même scandale yi défé ay investigation ba japp ay autorité lañuy ñuy def mooy ñu ger leen ñu nopi duñ wax tay Sénégal fi tollu tay ak ñu ngi ciowé ay journalistes étrangers ñoom ñoo dem def enquête wa BBC ñoo ñoo indi mboosoor ak ak ak labaj ak nëggte ak njubadi gi nga xamné état bu Sénégal yoré na ko suñ pétrole ak suñu gaz wa BBC ñoko ko def boobu ñoom ana ñu journalistes sénégalais journal affaire armes yi journal Le Monde moo ko bind ñoom ñu door koo reprendre subhanallah nekk ay corompi nekk ay estorance ñoom ñoo yées Macky Sall journaliste yu Sénégal man li ma leen di wax sama doom du nekk journaliste sama doom du nekk policier sama nekk sama doom du nekk gendarme ñaanu moo ko yàlla incha allahu taala parce que ñii du nekk juge tamit parce que ñii gàcce leen ci Sénégal tey ñii gàcce leen ci Afrique te li lay woon hypocrisie bi nekk suñu gouvernement yi hypocrisie bi nekk ci organisation internationale yi yéen nan ngeen mën a toogee Dakar barki Demba Ndiaye ngeen ne da ngeen di xeex mbirum rébellion da ngeen xeex mbirum terrorisme terrorisme da ngeen di xeex mbirum arm ah